ci séddale gox bi ñu bëgg a amal ndakaaru keroog àjjuma juróom-ñaari fan ci weeru mais ministre des collectivités territoriales monsieur Omar Gueye ci njiitu président de la république monsieur Macky Sall firndeel na ne Kër Massar nar naa doon juróomeelu département bu ndakaaru topp ci Dakar Tëngéej Pikine ak Géejawaay ci séddale boobu ñu bëgg a amal département bu Kër Massar nar naa am ñaari commune Kër Massar ak Aynou Madi loolooy li metti waa Boune ci liñ leen boolewul ci commune yu département bu Kër Massar moo tax tey ñu doon amal doxu ñaxtu waaye seen ñaxtu bi wéetuñu ci benn yoon waa Daaru Miseel ak waa Kër Massar Parcelles Assainies 1 ba 13 ñëw nañ ngir jàpp ci xeex bi nangu nañoo bootu ci ginnaaw buun ngir mu doon seen commune. ma Macky sàll ba mu ñëwee ba mu jógee te ànd contre Abdoulaye Wade ba bésu tey saa yu soxlaa buun jox na ko majorité ni mu ko bëggee woon buur nag dañu amoon seen soxla moo taxal ñu ànd ak moom te moom diggoon nañu kon ma bëgg mu honoré parole beneen bi ci des mooy am na loo xam ne bu dafa am benn injustice bu ñu ko teg ndax village traditionnel la ñu ñu érigé village traditionnel yëpp. ay commune te bàyyi buun xotti wor maam xotti ko ñetti ñetti ñetti morceau ñu fa benn morceau bi ko parce que yëmbal man man man woon ñaari commune ñu fa benn morceau bi yëpp jox ko yëmbal sud nekk matalal am nga commune matalal beneen morceau bi ñu jox ko yëmbal nord nekk matalal bi ci des ñu yóbbu Kër Massar te buun ma moo mag yëmbal.

foo ne ay morceau yu xonq ak ay pancarte ngay gis te lenn rek ngay dégg buun ñetteelu commune bu département bu Kër Massar. marche bi dara waralu ko lu dul population buun daaru miset ak Parcelles Assainies ñu booloo di laaj suñu commune ndax dañoo saluer nañu dëgg la départementalisation bi projet bi saluer nañ ko mais deux communes yu ñu dagg moom dañ ñu xaw a léger tuuti. Nous avons ñu doon bëgg ñun suñu commune bopp ñun les populations de Boune Darou Miset ak Parcelles Assainies ñu jox ñu suñu commune moo waraloon suñu marche bi marche pacifique. autorité yëpp dem nañ fa ba ci président de la république ñëw na fi ñëw na fi 2010 ñëw na fi 2019 Nous avons carrément bés bu faloo rek dinañu def commune bobu ba léegi ñuy xaar ñu ne départementalisation dina am ñuy départementalisation bi génn ñu dagg Kër Massar en deux communes euh, dogot Dogote Boun et ses environnants loolu tamit euh, injustice boobu la ñu bëgg président de la république mu corriger ko. li ñu fi dajale tey mbooloo mi ngeen di gis nii ay responsable lañ ñi yor parti politique ñi yor fédération ñi yor mouvement ñu dëkk Boune Parcelles Assainies ak Darou miset àndandoo boole suñu doole ngir xex ndax dañoo dégg am découpage bu nek en cours té découpage bi dafa léser Boune mënuñoo comprendre Boune N'ek le 4e village traditionnel de la région de Cap-Vert créé depuis vers 1700 aujourd'hui à Dakar toutes les tous tous les foyers lébu muy Yoff Cambérène Médina Thiaroye Malika Mbao tous ces villages là aujourd'hui n'ek nañ commune kon jonne tay tey n'ek commune. moo tax ñun collectif bi ñu jug boole suñu doole ak Daaru Misat ak Parcelles Assainies ngir wax président ne ko buñ jot na mu am commune ndax moo ñu ko digoon ñëwoon na fii ci élection présidentielle yi 2019 ne su ma falwaa jox buñ commune ku ne ñu ngi koy fàttali waxam jooju nañ jox buñ seen commune parce que mën naa nekk mën na nekk aujourd'hui Kër Massar ni ñu ko waxee ci français yi c'est vingt cinq kilomètres carrés ñu xaaj ko ñaari commune commune bii di Kër Massar mën nañ ko xaajaat su ko defee ñu jël Parcelles Assainies yi jël Daaru Misat jël buun jël turu commune bi tuddee ko buun ngir jëlee ko parce que dafay yàgg village traditionnel la tey loolu la ñuy xeex tey di ko yaakaar ci président Macky Sall. nañu xam ne buun quartier euh, kii euh, village traditionnel lébu la village traditionnel lébu la te dafa yàgg historique gu buun laay ragal man ñu rayee ko. parce que bu ñuy xalaat naan ay Kër Massar est Kër Massar ouest buun dootul exister ndax xam nañ Caaroy kaw amoon na fi mais léegi amatul yëmbal si di ngay dégg. léegi nag ñun loolu la ñuy ragal si buun nañuy fexe ba ñoŋal ñu suñu buun gi bàyyi fi buun ba buun historique buun des fi mu doon suñu valeur incha allahu mu bokk si patrimoine national bi ñun loolu la ñu bëgg. Babacar Diassé coordonnateur collectif bi réclamé commune bu buun Mayker ñiitu sage ak notable yu buun nee na Sonko ñiitu jigéen ñi vie ciment Sonko ñiitu ndaw ñi ak laay këral ñoom lañ leen taataanal seeni kàddu ci ñaxtu biñ doon amal ngir buun. doon ñetteelu commune bu département bu Kër Massar.